salaamaaleykum mbokk internet yëpp man la Gabriel Bopp nekk adjoint au maire ci commune Kër Moussa am mbégte ñëwaat fii nii ci sama quartier bi di saint yàlla def seen ASC bi tuddee ma benn benn final ma ànd ak délégation boo xamante ne yaa ku ko gis xam ne délégation bu takku la di leen di sant di leen di gërëm ci seen teewaay yéen ñëpp. voilà dama koy rafetlu parce que boo xoolee ñun Kër musa ñun ñëpp benn lañ yàlla dafa def nag ay quartiers yu bëri ñoo nekk Kër Moussa te ci quartier yooyu am na ci quartier bu ñuy oowee saint ñoom am nañ seen ASC te dañuy compétir chaque année remarque bu ñu mën a def te président zone bi muy Looto Ndiaye mi en même temps conseiller mun na maa seede bokk nañ ci équipe yi gën a fair play ci tournoi yi bañ na ko sax des fois compétition bi bu jeexee ñoom ñu yëkkati benn coupe maanaam équipe bi gën a fair play ñu jox leen ko donc loolu noonu buñ ko gisee dañ koy rafetlu donc saa bu ñu wootee ñun dañuy sawar a ñëw pour jàppale leen parce que sport fair play la buñ ko defee ci jamm rek yakarna dara du ci du ci du ci du ci du ci leneen mënu cee judd quoi donc ñooñu buñu xewlé xewlee ñun ñëpp mobiliser wu ñëw jappal leen budul dara sax fair play bu ñu nekkee jërëjëf. sport ci communauté Moussa. Mhm. noo ko gisee. Mhm. gars yi ñu koy préparé ça veut dire que am na jéego yu muy dox. effectivement effectivement non sport bi au niveau de Kër Moussa moom moo ngi dox bu baax a baax parce que li nga xam ne maire bi war ko ciy def. Mhm. moo ko ciy def te li may wax tamit lootu Ndiaye mi mun na ma koo témoigner. Mhm. lu jëm ci football bi lu jëm ci yeneen discipline yëpp lépp loo xamante ne bi moo ko ciy def moo ko ciy def te ñëpp xam nañ ne suñu commune bi dafa complexe. commune bi bul xam ñaata ASC ñoo fi yeewoo. ASC bu nekk dañ koy subventionné. nee fii dañ doon football ci ay terrain vague équipe yi dañoo am recette mais ak politique monsieur le maire ñu miiri leen ñoom beaucoup bu ko zone de Moussa bi am nañ terrain clôturé zone sud bi muy waa am nañ terrain clôturé loolu yëpp maire, bi moom moo ko def te bu ñu sañoon tamit ñuy continuer di continuer ba am sax ay stade am sax terrain yoo xamante ne dañ koy gazonné mbaa ñu def ko tapis loolu yëpp luy ñëw la mais wax dëgg yàlla ku gis commune Kër Moussa xam na né maire bi mo ngi jappalé sport bi bu baaxa baax non xam nga fi au niveau de Kër Moussa ñun ñi ay ay politique lañ benn ñaar ñii suñuy suñuy rakk lañ donc lépp loo xamante ne war nañ koo def rek du question ne lii moom moo tax mais de manière quotidienne la ñuy sekk ñoom jàmm donc ñoom bu ñu ma pare parrainé seen normal tamit ma yëkkati li ma am xam nga ñëpp jàpp ci monsieur le maire moo ci njëkk a jàpp ñoom Looto ñoom moor Diop ñi monsieur Ciss mi ñëpp jàpp ci ñoom day Diop ñoom Fat Ndiaye sama sponsor yi tamit mooy euh, Azedine Tawzi mi nga xam ne day yëngu ci ay produits bio di ko jaay ci grande surface yi résidence Le Bélier bi nga xam ne saa bu ma amee événement sama gan yi falaa leen dalal ñu toppatoo leen bu baax a baax xam nga ak euh, entreprise bi nga xam ne mooy euh, buy def nexmatu buy nga xam ne day jaay ndox ñoom ñëpp tamit dañ ciy jàpp bu baax a baax bu ko defee yooyu ñoo ñooñu bu ñu nekkee sa ginnaaw donc lépp li nga am da nga ko war delloo askan wi quoi te Saint-Benoît bokk ci suñu askan donc lépp lu ñuy def rek ñun dañ ciy jàpp carrément ok non non appel yi xam nga yàgg nañ koo lancé kilifa diine yi moom bu ñu lancé appel rek yaakaar naa ñun dañuy répété waat parce que suñu réew mi réewu jàmm la fii ku fi indi violence ñëpp teg nañ seen bët ci li xew ci dëkk bi gars yi dañuy ci biir xam ne yow mii ci gaalu caaxaan nga di yóbbu ci gaalu loraange nga leen di yóbbu ñu wàcc gaal bi joow dem ci beneen yoon parce que dëkk bi dëkku jàmm la ñun xamuñu violence dëgg nag au début nag mun ngaa ñëw indi say wax gars yi jàpp ne lii mooy yoon ñu ànd ak yow mais bu ñu demee ba ci biir xam ne yow mi fi nga leen jëmee baaxul ñëpp ay reculer waat sénégalais moom am na ful ak fayda goo xamante ne bu ko leere ne yow ci gaalu musiba nga koy yóbbu du yéeg ci gaal boobu mën na ci yéeg au début de mais bu gisul loo xamante ne lii dalu ci xelam day wàcc dem te li wax nii ñiy def politique am lecture xam nañ loolu voilà ñun daal dëkku jàmm la réew boo ko soxlaa da ngay dem ci ay élection ñun ñii mairie bii tëbuñu tëbuñ rek ñu nekk fi monsieur le maire dafa dem ci ay élection tàllal loxom askan wi askan wi ne yaa ñu doy mais du lu ñuy foqar ñi nit ñi dangay dem élection réew mi tamit noonu lay demee da ngay dem élection boo gañee ñu ne yaay yaay président buñ la gañee nga am fair play yeneen a ngi ñëw man loolu laa gëm mais kantaanaa da ngay foqati affaire yi mbaa indi violence yi jéem loolu du dox ah non xam nga xam nga xam nga mbëkk mi dafa complexe waaw parce que tamit man li ma jàppee mbëkk bi xale yi non du question sax euh, ñoom bëgg nañ tekki waaw benn ngi noonu beneen bi mooy au niveau du Sénégal man mii damay politique man Macky Sall laa àndal yaa ngi may dégg moo ngi liggéey réew mi mais nag am na lu bari loo xamante ne xam nga des na parce que ndaw ñi tamit pression sociale bi tamit day am yow da ngay nekk ci kër say frère mbaa say doomu baay am yow amoo yaa ngi dégg ay journée yoo xamante ne ay journée cinq 5000 francs mbaa 3000 xam nga ne loolu des fois day métti donc ñoom lu ñuy gis mooy dem dem au niveau de l'Europe te loolu du Sénégal quest kese quoi c'est l'Afrique de manière générale ñoom Europe la ñuy dem man du ma leen blâmer quoi mais su ma sañoon tamit ñu gëm yalla parce que tamit amna yene yo xamantene xamante ne la quoi réew mi bon Macky Sall mo ngi def luma mu mën pour liggéey mëna am pour nit ñi mëna a gis seen bopp bu baaxa baax ci réew mi nañ muñ rek yalla def na tamit pétrole beeg gaz bi ñëw na Ñom tamit nañ muñ quoi buñu buñé rek affaire yi na sorti parce que man politique Macky Sall bi ma gis ni bu continuer inshallah Sénégal yëpp dinañ gis seen bop ci état bi voilà voilà wala comme que match bi jeex na te gis nañ ne cadet gi moom moo gagné chorale bi ñi ñi vraiment ñi félicité cadet yi tamit di encouragé chorale bi gaa sax chorale sax lii du objectif am parce que ñoom pour woy église la mais dañuy ñëw neexal koñ bi xam nga tamit jàpp ci ASC bi ñoom tamit ay jàmbaar lañ vraiment ñoo ngi leen di sant leen di gërëm yéen léegi fi may daanelee mooy di sant ñi fi nekk ñëpp ak euh, borom koñ bi mi nga pas Antoine chef de quartier Et en même temps le chef de village Baye Morgueil. voilà di nuyu le président ASC bi Gabi Diop muy tamit self made la day day day man li ma le gars day Je quoi ci zéro la commencé nous au top donc si noonu xam nga nekkoon de bu ko man sori koñ bi sama ci mais bu mu ne koñ bi seen ASC bi dañoo rafle président ci la porté wu volontaire jóge ba jam ñaajo ne fii sama koñ la donte dëkkatuma fi mais damay ñëw jàpp ci équipe bi ku mel noonu tamit war nañ koo fonk war nañ ko sant di ko gërëm quoi lu mu am rek moo koy def ci équipe bi di gërëm tamit ASC bi yëpp di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñaa ñoom laay àndal guddeeg bëccëg kenn ki di bamb sugu waaw di sama waay keneen ki góo nekk ci ay xat-xat mais yàlla xam naa dina ko ci génnee ci fan yi rek voilà ak ñoom Mor Diop ak ñoom Pape Ndiaye mi nga xam ne dafa génn mais boo xoolee presque suñu protocole bi yëpp moom moo ko yore voilà dafa voyagé mais xelam ak xolam yëpp moom moo ngi fii ñoom Ndonga Fall fan yi xam nga rek dafa nekk ci ci jóge ci mariage te coono yooyu moom moo ko jàpp ak ñi nga xam ne ñëpp maa ngi liggéey ak ñoom ci ci dëkk bi yéen ñëpp maa ngi leen di sant gërëm di leen di sant ok di sant tamit presse bi muy waa KM TV waa Palor TV waa Kuma TV ak Xalil photographe